Ah, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah beneen yoon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di sàkku ci yéen ñaan te di leen ñaanal ñu dellu suñu beneen jotaay ci dibeer gi ci dimanche gi du fekk ku ci nekk fa nga toog ñu jox la loxo di la ger sëriñ bi ñu ñëw tey di waxtaan ci beneen thème ci beneen anam muy la vie conjugale néegu sëy diggante way dencante. ak li ci xew lépp ci àddina bi ak liy xew lépp ci senegal surtout moo ñu yëkkati waaye laataa boobu ñu def nan daan def rek ñu bàyyi la nga nuyoog jàmm ñu ba pare bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatih lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiril xaq bilxaq walhaadi ila siraatika mustaqim wa ala alihi xaq qadri wa miqdaari asim yaa himmata sayxi udrina bi hada almahdari wa taxti fi min asari taxti lana bi safar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli alhamdulillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu leen di nuyu bu baax euh, di leen fàttali rek euh, yéen a ngi ak Cheikh Omar Diop li ci cité Aline Sow ci golf villa 652 euh, ci biir te bi ci wetu jumaa ji tey nag ñu ñëw jàkkaarle ak yéen pour waxtaan ak yéen ci suñ mbokk yi nga xam ne dañuy sëy ak ñoom moo xam ku góor la walla ku jigéen la suñ mbokk yi jigéen yi nga xam ne dañuy sëy ak ñoom ak mbokk jigéen yi nga xam ne ñu seeg nga xam ne des fois nga gis ñaari ànd way dencante yoo xam ne réero na na am ci seen diggante te fekk na waxtaan moom moo manqué seen diggante des fois mu am réeroo boo xam ne wàllu njabar la waa des fois mu am réeroo boo xam ne wàllu àndandoo moo ko waral des fois mu am réeroo boo xam ne ñàkk ay ñàkk bokk ay culture moo ko waral des fois mu am ay réeroo yoo xam ne ñàkk dëkk ñàkk nekk nekk ensemble moo koy waral ndax des fois nga gis koo xam ne nit dëkk jabaram benn weer lay nekk moom par at kooku mën na am réeroo jabaram mën nañ ñàkk a déggoo fekk na ñàkk ay ñàkk waxtaan moom moo ko indi wala ñàkk nekk des fois mu dem sax bu jural leen ñàkk doom des fois mu jural leen li nga xam ne moom mooy euh, ñàkk ménage bu neex loolu nag li ñu war a waxtaanee tey incha allah euh, di leen ci dalal di leen ñaanal yàlla jàmm ak di ko ñaanal suñu bopp di ko sàpp ci yéen bisimilah. waaw suñ laaj bu njëkk suñ question bu njëkk mooy. yow mi nga xam ne dangay faral di recevoir nit ñi. Mhm. nit ñi di la dikkal. Mhm. fépp ci àddina bi. Mhm. rawatina fii ci Sénégal. ak région yëpp itam. ban jàmbat nga gën a seetlu. muy xew ci diggante way dencante yi. loolu laaju laaju ki nga xam ne mooy recevoir la. beneen laaj bi ñu ci teg. nga boole ñaar ñooñu. mooy lan nga gis ne. mooy solution. ci càmbar yooyu ñu la koy ci ci ci ci ci jàmbat yooyu. ñi lay dikkal di la ko jàmbat. waaw man bokk na ci liñ may jàmbat mooy goro yi nit kuy sëy ci kër nekk ak say goro ñu lay xeex ak nit koo xam ne dafa nekk ci sëy nekk ak ay wujjam ñu koy liggéey nga xam ne léegi bu liggéeyante bi dafa nekk lu baree baree bare ci wàllu sëy yi léegi ménage yi léegi pour nga gis ci ménage bu naturel dafa manqué ndax léegi nit ñi léegi bu dee ñaari jabar nga yor moom na la wóor ne Euh, am na xeex yu bon yoo xam ne ñu ngi koy def entre jigéen ñi parce que léegi jigéen ñi amatuñu na maanaa gëmatuñ seen bopp ci sëy liñ gëm ci liñ gëm ci seen bopp ci sëy léegi mooy njabar mooy sëy sëy bi sëy mooy sëy sëy bi léegi maanaam dem liggéey sa wujju xeex ko mystiquement walla nga xeex sa liggéey sa jëkkër pour mu bëgg la léegi seen taal yi amoon ak seen nemmale yi amoon ak xet gu neex gi ñu amoon ak senca ba ak mën lal ba yooyu léegi góolootuñ ko moo tax man danaa ñëw dinañ may dikkee ci côté yooyu parce que jigéen en jigéen bul fàtte mën na ñaaw ci mën na ñaaw ci kii ci kanam rafet ci rafet ci jëfin mm-hmm. rafet ci jikko mm-hmm. rafet ci euh, ci sañse mm-hmm. rafet ci loolu parce que nit ki bu fekkee mën nga sa néeg mën sa néeg mooy mën sa biir néeg mën sa waay ah di ko di ko di ko di ko gérer gérer di ko gérer gérer gérance bu baax tal ko su wàccee nga nekk ci wetam Hmm? soo gisee ci moom kanam gi soppee ko nga di ko laaj ah, soo mu wàccee nga sañse xëy lu neex bu boo toggee nga tegal ko suuri souriral ko ah, nga nga nga di ko kii am na ci benn anecdote bu may nettali benn femme boo xam ne dafa ñëwoon ci man am xuloo ak jëkkëram ba jëkkër takkal ko wujju ndax lan ndax ni muy négliger jëkkër ji ni muy sagganee jëkkëram bi mu ñëwee toog mu def dagg ticket consultation toog maak moom ñuy waxtaan bi ñuy waxtaan maak moom dama ko déglu mu wax ma problème A ba Z dama xam ne ki jarul ñaanal kii ñàkk tal jëkkëram ak ñàkk euh, euh, euh, sëy ñàkk tal jëkkëram ak ñàkk sëy moo ko teree moo ko teree moo ko teree nu mu tëddati moo ko teree am li mu bëgg ci jëkk ci jëkkëram léegi bi mu ñëwee toog ak man wax ak man bi ma waxee ba pare dama ne ko léegi man dama lay jox dama lay yónni ci sa ci sa jëkkër yow mi ñëw pour ñaanlu nekkut yow laay yónni ci sa jëkkër man damaa am sama ndaw lu ma yónnee ci sa jëkkër pour wan la sa jëkkër dafa la bëgg mu wan la sa jëkkër mu takk na wujju mais malgré yow yaa tax mu takk wujju yow yaa takkal sa bopp wujju léegi dama lay wax ni nga xam ne noonu ngay doxalee soo demee si sa jëkkër yow soo demee quinze jours nga ñëwaat nga indil ma résultat parce que dama lay yónni nag bul fàtte ne dama lay yónni mu ne ma d'accord na ma ma yónni ko si jëkkëram ma ne ko soo demee si sa jëkkër su wàccee ma ne ko yow mii si yow yow jabaru waaj yow jabaru waaj waxu ma moom de man sama yónneen sama ndaw li ma yónnee ci sa jëkkër moom mooy dem kooku nag dafay dox mission mission boobu bu ci buñ la saagaa buñ la xasee buñ la buñ la jànnee yow sa yoon new ci dama laa yónni ci sa jëkkër dama doxal ma sama sa mission sa jëkkër nga dellu si waat ñu xool résultat bi ñu am yaa ngi dégg bi mu demee ci jëkkër ji euh, ma ne ko léegi soo demee su sa jëkkër wàccee demal nga gàttanu ko nga téel ko saag bi nga lëgg ko ngeen dugg ci biir kër gi nga xool sa jëkkër dina xam ne am na étranger bu ñëw ci kër gi dana xam ne kii du jabaram boo boo boo bu ngeen àndee na bu ngeen di bu ngeen di dugg ci kër gi na nga ko cut sa baaraam nga dóor ko épaule nga dóor ko sa taat yi ngeen baal ma ci kàddu gi mais na ko na ko na nga ko cox-coxal ba wan ko ne ko man dama la dama la soxla tey bu ma ne ko bul xool xale yi bul topp tax a étranger nga ci kër gi yow amoo fa mbokk amoo fa xale dañ laa yónni pour nga ñëw dox benn mission ci sa kër. Hmm. mu ne ma d'accord léegi mu dem. bi mu dem ma ne ko nag su su su su su sooy sangu na nga war doo sa serviette nga aj ko bu baax poo jiy génn ngeen baal ma ci kàddu gi parce que damay mhm. jàngale waxtaan la yaa ngi dégg mhm. nga fexe dënd bi génn mhm. mais na nga na nga ko na nga ko wan daal na ko maa ngi sangu ji ba moom mu xam ne yow yaa ngi sangu ji soo demee sangu bu ngeen lekk tamit na nga ko nga tegal yaa ngi dégg nga daggal ko nga tegal ko ba mu xam ne yaa ngi koy daggal di ko tegal nga fexe nga nga nga bu ngeen di lekk nga di ko tegal bul am kese. Mm-hmm. naa forcé ko mu lekk. Mm-hmm. su guddi jotee ba nga xam ne ay dix huit heures jot na dix neuf heures. Mm-hmm. na na nga koo na nga ko menacé. na nga ko menacé boo yeggee bu digg na doon ne ko tey moom wala jàppee tey doo doyee. yaakaar ne sama rab bi ma jàppoon daf ma bàyyi. nga yow tey tey doo doyee yow guddi tey gii ma la xiifi nangam nangam ma ne ko de ko wax loolu. bu ko defee moom danaan waaw may xanaa ma sama dëkk sama jabar am lu ko gane si. wala man dama kii ma kii kii kii kii du sama jabar parce kii daa wuma nuyu kii daa wuma tànn su su sëqatee rek indi ko lim soxla ma ne ko nag bu guddi jotee su ma ne boo sonnee boo sonnul yëpp fexeel man na dema dema dema dem bu ngeen ànd yéen ñaar ci lal bi ngeen baal ma ci kàddu yi na dem ba moom mu daw bu ko may mu noyyi nga def ko noonu pendant une semaine nga xool mu ne ma bi mu demee bi mu demee dem def li ma ko wax bu ay fekk day aye de première ay bi mu def loolu mm-hmm. deux ay bi ay bi jëkkër ji moom moo forcé dëkk ci ne ko demal demal ci sa ah, ah, ah, ay bi demal nga eh, si motali sa ay bi ndax sama ay jeex na mhm. dëkk ji dëkkataa yàlla nekk na fay sol ay dàllak mhm. di raataa coyoog lu dugg na ci pour bañ a gaaw a dem mhm. maanaam mu deuxième jour bi mu def noonu troisième jour bi mu def noonu ba mu mujj gi moom mooy ba max jëkkër ji pour mu génn kër gi pour mu dem ci ci beneen beneen jabar ji léegi bi mu ñëwee nag deuxième deuxième kii bi bi mu ñëwee ci euh, rendez-vous bi ci ñëw indi bi mu ñëwee fekk patient yaa ngi toog ci suuf moom mu xaw a yéex a ñëw nit ñi bari fa muy ñuut ñuuti toog ci saal bi di ñuut ñuuti parce que yàkkamti na maa indi résultat yi bi mu ñëwee dugg ci néeg bi dafa dugg rek daanu ci suuf rek xalamu ma ne ko yow lu xew mu ne ma Cheikh Omar doo nit Cheikh Omar doo nit Cheikh Omar doo nit ne ko moom lu tax nga loolu mu ne ma parce que sama jëkkër bi moo ko woo defee li ma wax sëriñ bi gis nga dafa nooy nepp hmm. sëriñ bi gis nga fi sama jabar sama jëkkër talatut sama wujju ma ne ko xam nga sa wujju woowu hmm. sa jëkkër nobu ko da ko faj mer la woon hmm. ma ne ko tey fi mu ne bi mu gisaatee jabaram soxlaatul ndaw see ma ne ko yow yaa takkal sa bopp wujj ma ne ko jigéen ñu bëri tey ñu ngi ciwmaal seen ay jëkkër fekk ñoom ñoo seen jëkkër su liggéey jee ba wàcc ña ngay nelaw suñ liggéey jee ba wàccee ña nga ca ay téléphone su liggéey jee ba wàcc ñu ngi ci message yi ñu ngi ci kii talatuñ seen jëkkër yi su sa jëkkër waxee nga tontu ko tontu bu gàtt pour gaaw a nekk ci li nga nekk ma ne ko ji góor boo ko talee dootul soxlaate benn jigéen góor boo gis mu xalaat benn jigéen rek te parce que dafa fekk taluñu ko mhm. ndaw soosu bi mu ñëwee ñaana lu ma ko joxuma ko saafara joxuma ko dara dama ko conseillé parce que loolu dafa baax nga am pédagogie ci côté sëy yi parce que ñun ay jàngalekat lañ mhm. ñun ay ñaankat lañ waaye tamit ay yarkat lañ ndax am nañ expérience ci côté boobu léegi bu ko defee nag nit ki am na ci ko xam ne bu ñëwee mhm. daf lay wax na la loolu yëpp matal naa ko maanaa jox maa ngi jox sama bopp sama jëkkër maa ngi koy toggal mu lekk Cheikh Omar nu ma gën defee lu baax rek sama jëkkër gën maa bañ kooku nag bu boobaa dañ koy seetal hmm. bu ñu ko seetalee xool ba xam est-ce que ki àndandoona ñoo tax digganteem ak jëkkëram hmm. wala ñu xool ko ba xam est-ce que kii li tax mu mel nii dañ koo dëddale ak jëkkëram parce que am na ci loo xam ne da ngay li nga a def yëpp te jëkkër ji mu mel nii saa a yokk hmm. laa bu boobaa dañu ne y a quelque chose de ne mu nekk entre yow ak jëkkër loolu bu boobaa dañ koy xool lii c'est mystique dañ lay defal ay ñaan ci wàllu code mystique mu dañ am na ci ñoo xam ne da ngay gis ñoo xam ne seen wàllu comportement ak seen jëkkër moom moom lañ seen jëkkër bokk ñoom ñaar avocat wu maanaam bokkuñu ay ay ay ay ay réalité mhm. kii danga gis am na ci góor ñoo xam ne seen vice mooy seen jabar dafa war a sol pantalon dafa war a génne forme mhm. yooyu jabar dafa war a xam si jëkkër mhm. am na si ñoo xam ne li leen di daaneel defaa nga toogal sa jëkkër ngeen di seetaan télé nga gis bu jigéen génne rek am lu ko mu wax ci da nga ciy tiire leçon <laughs> waaye xalal ma xale bi mm, tay baasam bi mhm. wala xoolal xale bi tubéyam ji wala xoolal ma xale bi nangam bu la ko sa jëkkër di wax mu ngi lay envoyé xëy na gis nii laa bëgg nga mel te meloo ko meloo ko léegi nag su ko defee yow loolu mën nga koo mel ci biir gi ak sa jëkkër su ko defee yooyu def dootu ko mànkeeti mhm. mais tax jigéen ñu bëri am nañ problème ak seen jëkkër xanaa am na góor ñoo xam ne dañu am lu di daaneel ci ci ci ci ci jigéen mhm. am na ñoo xam ne seen jëkkër reetaan sourire moo leen di daaneel am na ñu xam ne sourire moo koy daaneel am na koo xam ne li koy daaneel ci jabaram ah mooy tal mu tal ko maanaam muy nekk ci ay occupation muy nekk ci ay affaire am di ko dox ndox di ko laaj di ko doxal ay service am na ñoo xam ne loolu mooy seen problème mm-hmm. am na ñoo xam ne seen problème mooy seen jabar di leen di leen di leen toppatoo ci lal bi mm-hmm. bu guddi jotee ñu bàyyi seen nelaw yi toppatoo seen jëkkër nekk seen jëkkër ba seen jëkkër nelaw ñu soog nelaw mm-hmm. loolu yàggul benn guddi la bu ko defee yow sa jëkkër bu xëyee dem liggéey nga nekk ci say na si jigéen ñoo xam ne koy chantage hmm. ci ci lal bi hmm. mooy tax ñu am li ñu soxla seen hmm. sa bopp sa jëkkër moo mooy tax nga am li nga soxla ci sa jëkkër parce que na ci jigéen ñoo xam ne dañuy bëgg dañuy bëgg sëy am na si ñoo xam ne bu ñu toogee soo jógee sëy sa jëkkër mu commencé di dem ci yenn affaire yi commencé di di changé ay habit mhm. da nga war a xool jàngataat sa diggante ak sa jëkkër mhm. lan mooy problème sa diggante sa jëkkër ban problème la am mhm. parce que am na ñoo xam ne dangay gis ñoo xam ne dañuy gis benn xale bu tuuti nekk ci nekk mag ba pare topp benn xale loolu dafa am seytaane bu koy waral des fois nga gis ñoo xam ne xale yi ni ñuy comporté woo loolu moo koy indi seen ay yaram yi ñuy wane moo koy indi moo tax jigéen su guddi jotee mm-hmm. dafa war di seet li nga xam ne mm-hmm. jëkkër di jëkkëram fu ko soxla mu ko koy wan bu guddi jotee mm-hmm. nga xam ne yéen ñaar yéen a nekk nga xam ne yaa ngi ci biir néeg bi dafa am yoo xam ne dafa war a am ci sa diggante yaa ngi jëkkër kersa waru ci am kersa war na am ci côté jikko ci côté melok nekkin waaye warta am su fekkee ne sa jëkkër daf la soxla warta am ci communication ak sa jëkkër danga war a wax ak sa jëkkër eh temps yi yow temps sa sikki bi dafa weex de. Hmm. temps yi sa baab bi dafa nangam de. man hmm. de temps yi man góor gi di nga jantalee nangam man dafa jaar. Hmm. yooyu góor daf koy soxla bu ko defee góor gi dina xam ne kat ah man kat sama jëkkër mu ngi may bàyyi sama sama jabar mu ngi may bàyyi xel. noonu la tamit war a amee entre jabar ji. ak dëkk waaw dinañ si ñëw dinañ si ñëw jéngun mais programme la waxtaan programme la d'accord li war jigéen la nekk ba pare li ñuy wax mooy jigéen si mhm. lan moo ko war waaw dinañ si ñëw ci jëkkër jéngun benn yoon jéngun waaye waaye dañoo tëral programme waaw waaw programme la mm. ne sëy bi a def jéngun waxtaan dañu war a wax jigéen ji lan moo ko war waaw léegi su ko defee nag yow mm-hmm. mm-hmm. loolu nañ la ba ngay ñëw mm-hmm. léegi nag su ko defee yow sa jabar sa jëkkër boo toogee ba yàgg nga wax ko ne ko mais mais mais mais góor gi tey temps yi temps yi macha allah hmm. temps yi nag moom boo génnee moom bu la xale yi gisee hmm. yàlla bu ma la ñàkk sax yàlla bu ma la ñàkk sax waaye noppi rek na xale yi dinañ xam ne maag ñoom duñ ma duñ ma mën de du ma leen ko bàyyi du ma leen ko bàyyi jigéen du màgget te du rëy amour du màgget amour du sal sàlli mm-hmm. amour day dund mm-hmm. comme ni ngay dundee di toppatoo su bopp noonu la amour di dundee mm-hmm. noonu lay du neexee wala sax jigéen ñi xam xam dañoo rëy mu yàq leen lu bari seen am na xam ne dañoo ñàkk seen jëkkër ndax rëy rëy moo ne teg parce que rëy nañoo wax sax seen sa sa yére bi rafet na rëy nañoo wax sa jëkkër seen jëkkër te temps yi da ngaa leer te comme man sama soxna si lu may def yenn saa yi ah nag dama koy wax <laughs> ah ngeen baal ma sama soxna si léegi léegi léegi léegi ma génn temps yi moom macha allah moom. waaw mu ne ko ah. su ma génnee da ma xam naa ne su ma génnee temps yi dinaa am dara moom su ko defee mu ne ma dara ki ma fa may kenn dara nangam nangam <laughs> yooyu dafa am solo parce que li ngay dund nga wax ni tamit am na solo mm-hmm. donc dafa am solo ci jigéen mm-hmm. jigéen di cox-coxal jëkkëram léegoo-léeg nga ñëw toog ci mm-hmm. fauteuil mu toog fauteuil bee nga toog fauteuil bee ku ne am nga sa fauteuil mais léegoo la xale yi génn nga jékki-jékki rek daw rek ñëw ci fauteuil yow rek toog ci kawam rek jël réegi teg fële réegi rek ki épaule daal dawaat tawaat sa place comme ça ngeen nekk ay symbiose en ah, ah, symbiose bu ko defee mm-hmm. xale yi ngeen leen di sóoraale parce que am na ne image yoo xam ne xale yi waruñu ko gis waaw aada ko gis mais mm-hmm. bu xale yi génnee rek mm-hmm. automatiquement sàcc da nga war a sàcc benn affaire bu garaaw dóor ko sa jëkkër daal di dew delluwaat sa place léegoo léegi yi génn nga koy may ndox si yóbbante ko benn message ci wax ah taayu góor gi moom taayu moom da nga gëj a ree qu'est-ce que yàlla a ree su ko loolu dafa am solo ci mbëggeel ay ñaar ñu nekk. suuxat gi suuxat ko. Mhm. ba beesalaat seen ànd ba beesalaat seen nekk ngeen nga bañ a rëy. Mhm. am na ñoo xam ne seen jëkkër daan nañ leen defal ay lu ne. Mhm. ñu xëy xëy seen jëkkër téye seen téye seen loxo lu ko waral parce que yaa changé. yow yaa yaay wax lu naqari léegi. yow yaay xooloo léegi. da ngay dem sax ba yow si jëm bopp yow. yow da ngay remarqué sax ne yow. yow léegi xuloo rek yaa sa jëkkër da ngeen di xuloo rek hmm. nga yaakaar ne dañ leen dëddale fekk dëddale wuñ ne fekk yow yaa changé dara du fa mystique dara du fa mystique mais yow yaay changé yaay hmm. tontu tontu bu naqar yi hmm. yaay tontu tontu bu gàtt yow yaay gis guddee wàcc yow yaay gis yéex a yéex a ñëw yow yëpp yaa koy gis léegi te fekk yow daawoo ko woon gis léegi su ko defee nag yow moom mooy dem ba commencé indi ay ay ay ay ay ay changement ci sa diggante yaa sa partenaire sa jëkkër fekk na jabar dafa war a nekk ba lu nooy jabar dafa war a nooy mhm. jabar dafa war a am souplesse nangu nangu mhm. mm, maanaam nekk mhm. nekk complé nga nekk complémentarité ci sa jëkkër nga ko jege di ko waxtaanal nga xam ne jëkkër ji day yàkkamti su liggéeyee jee day yàkkamti wàcc mais koo xam ne soo liggéeyee jee soo bëggee dem sa kër xalaat na am na gaynde boo fa nekk soo bëggee si soli sax soo wàccee sax soo uyoo téléphone koy waxal soo ñëwee nga nga simi sa dàll wala aloo lan la waaw wala nga soo simi sa ngay sol sa dàll ah, ah. nga yéex a kii ah yow de sa dàll yi temps yi ni ko simmee doy na waar ah yow de réeroo di contrôler sa jëkkër di ko di ko enquête loolu baaxul hmm. day tax sa jëkkër xalaat loolu hmm. am na ñoo xam ne seen jëkkër nekk nañ ay doxaankat fekk ñoom ñoo poussé seen jëkkër ñu dem nekk ay doxaankat hmm. parce que boo wàccee ah guddee nga tey de ñeme nga loo ñemeloo nga sa jëkkër mu présenté wu ci côté guddee su ñëwee nag commencé excuser wala di wu waaw non amul solo àddina noonu la njaboot ku ko yor da ngay daw. da ngay daw rek ngeen macha allah. Hmm. bul sax même bu fekkee doxaankat la sax yow gëmmal. Hmm. bu ko defee du mës a ñemee présenté ndoxaan. gëmm gi ngay gëmm ko moo koy génnee. koy génnee du ñemee mës a ñemee présenté ndoxaan gi su ñëwee wan la ne ah dafa guddee nga guddee ah temps nijaay wala ah góor gi tey de guddee nga xam naa embouteillage bu sàkkal ko ay lay. Hmm. loolu dina ko jox kersa ba tax mu ñoo man li ma nekk xaar ma ruus day xam ne gor laa yor danaan ah man kat sama la ma yor fële hmm. kooku ñeme moom moo koo teg mais am nañ góor ñoo xam ne dañoo wow bët loolu danañ ci ñëw dinañ ci ñëw danañ ci ñëw mais hmm. jigéen ñi laay wax pour ñu xam ni ñuy hmm. accueillir seen ay jëkkër jëkkër bu liggéey jee ba wàcc da nga koy toppatoo danga koy wan ne ko man maa fi nekk pour yow damay mm-hmm. dis damaa disponible pour yow. Mm-hmm. damaa nekk pour yow loolu mm-hmm. mooy ab amu mooy ab ànd. Ah, sey dafa am lu koy dundal. njaboot gi dee fois ñu dem ba bokk ci sëy bi. fekk yaa leen ci boole. yow bu sa jëkkër waxee may ma ndox diwoo kaay may sa ma ndox. diwoo kaay may sa nijaay ndox. diwoo kaay lii. Hmm. day dem ba nga xam ne paar yi. Hmm. dootul amati af dootul amati affection ak yow. jig hmm. léegi xale yi ñoom ñooy mujj nekk ay soxnaam. ñoom ñooy sëy ñoom ñooy sëy sëy ñooy fóot fóot bi ñooy paase ñooy paase ñooy topp topp yow sax ñooy maye ndox ñooy teg sax añ bi. ñooy teg añ bi da ngay yekk sax yónni doom ji dama dama tegal sa bay kudd bi sax ñoo koy jox seen papa. fekk loolu day dem ba nga xam ne léegi da ngay nekk benn jàmbur ci kër gi. góor gi dootul la sentirati mm-hmm. dootul la sentirati ci wetam mm-hmm. bu dul guddi jot ngeen tëdd yéen ñaar te bu mm-hmm. ngeen tëddee ci lal bi ku nekk day nekk ci boppam ku nekk day tëdd jàpp wan loolu doxul doxalul sëy sëy ay ñaari ñaari lañ yoo xam ne dañoo ànd dañoo nekk dañoo war a nekk ensemble dañoo war a yëgante jigéen boo ko xoolee da nga war a sentir sa bopp ci moom waaye jigéen jàppee rek ba tey ñuy jëm ci côté jigéen ku jigéen ki moo war a nekk position boobu wane ne ah man kat sama jëkkër sama xarit la mm. sama jëkkër mm. sama confident la mm. sama jëkkër sama partenaire la sama jëkkër sama wéttal la sama jëkkër dafa nekk nit goo ko xam ne góor bu galaa la sa jëkkër sa jabar moo war a nekk sa avocat mm-hmm. moo la war a présenter ci sa famille mm-hmm. moo la war a défendre ci sa ay xarit mm-hmm. moo la war a présenter moo la war a nekkal say xarit bu ñu ñëwee ñoom moo leen war a accueillir moo leen war a yaatal moo leen war a war a dalal bu ko defee góor jigéen ñi góor ñi dañ lay ñii ah diw sàngam ne jabaram ñu mel macha allah xanaa xool leen diw comme jabaru diw nu mel mhm. loolu jigéen du nekk war na ko présenté war na ko taxawaay taxawaay boobu ci kër jëkkëram mhm. parce que jëkkër sang la mhm. yàlla boo gisee mu jël a na euh, rijaalu qawaamuuna ala nisaa yi jigéen ñi góor ñi ñoo leen yilif loolu ñi ñoo nekk ñu ngi seen ay responsabilité mu ngi seen seen loxol góor ñi responsabilité jigéen ñi mu ci kaw mu ngi ci loxol góor ñi loolu soo gisee yàlla wax ko góor dañ ko war a toppatoo. Mhm. góor dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a euh, euh, euh, defar. Mhm. góor dañ ko war a am nañu góor ñoo xam ne seen jabar yi ñoo leen tabax. Mhm. am nañu góor ñoo xam ne fi ñu egg tey seen jabar yi ñoo leen fi eggale. ñoo ko def ñoom ñoo seen jabar ñoo leen tabax bañ doon ki ñu nekk. donc jigéen mën na mën na mën na rey góor. te du ko rendre. du ko mën na koo defar. góor jigéen ci mën na yëggale góor ci niveau boo xam ne. Euh, mën na fa yegg te fekk na mérité wu ko woon wala sax amutoon capacité yegg fa mhm. fekk jabar moo ko ba ko ko xool euh, euh, président de la république Macky Sall mhm. ku xam si démb ak Marème Faye Sall mhm. di nga xam ne tabax jigéen dina tabax góor Macky Sall jàmbaar la góor la góor la kenn du ko werante mm-hmm. Mm-hmm. mais taxawaay bi Marème Faye am ci ko ku leen xam ñoom ñaar avant ñuy nekk président mm-hmm. di xam ne taxawaayu jigéen am na solo ci góor loolu exemple laay joxe ci côté boobu par exemple président bi président la ñëpp dëgg la hmm, jabaram dëgg la euh, euh, euh, suñ première dame la pour ñun ñëpp mën naa jël exemple ci ñoom mën naa jël exemple tamit ci kër diine yi seen soxna yi seen jigéen ñi niñ taxawee woon ak seen borom kër yi am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni soxna Xadija taxawee woon ak moom mais sooy wax mooy taxa moo tolloo ak ñun mhm. temps ak ñun jamono parce que mhm. jigéen dafa mhm. war a toppatoo jëkkëram dafa war a xeex la jëkkëram dafa war a défendre jëkkëram dafa war a jëkkër sa jëkkër sax dina def bêtise ah, nga jàpp ko flagramment nga sotoraal ko parce que ngir la njaboot nga war a jur am moom ëllëg ñu war a taxaw taxaw tekki nga xam ne sa jabar da ngay xam ne def nga def nga bêtise sa jàppar jàpp jàpp jàppar la euh, mais daala daala sac loxo ci biir sac bi ñu jàppale nii mu leer jabar ji am na ci ñoo xam ne bu ñu ko amee seen jëkkër tey ñu dee dañ koy chantage mhm. dañ koy wilpande mhm. dañ koy weer fekk na waru warutoon am sutura dañ ko war a sutura néegu sëy lañ ko tuddee néegu sëy la néeg mooy sëy mhm. ñaari way dencante lañ parce que ñaari way dencante boo ko déggee mooy dama lay dencal mbóot mu ma la xamal nga dencal ma mbóot mu ma la xamal du ma la xam olof dafa riche boo gis dégg ñu naan way dencante way dencante du ku góor ki la ñuy denc ci kër gi de déedéet jikko yu ñaaw yi am mag yow nga xam ko ci man ma xam ko ci yow loolu la ñuy denc duñ ko wax. waaye jabar xamal lenn jëkkëram. dañ bëgg ko waaw des fois nga ànd ak sa jabar nga nga nga ñàkk kattan ci wàllu sëy doo am doole ci sëy mm. su ngeen di ànd ngay gaaw a pare. xam nga loolu moom dafay vex sa jigéen. Mm-hmm. boo xam ne daf koy eggale foo xam ne mais jigéen ji da ko war a dencal jabaram. da ko war a mm-hmm. dencal jëkkëram. Mm-hmm. wan ko ne ko man ah yoo xam naa lii da ngaa sonn rek. ton nijaay coono yi am na ci benn benn waay boo xam ne. dafa ñëwoon ci man am problème mënul sëy bu sëy ak jabaram mm. du am érection mm. bu commencé dem ba tiim soxna si rek affaire bi reetaat mm. fekk jabar ji moo koy moo koy bëgg a rey te ko mu ñëw ci man wax ma ko ma ne ko sa jabar commune bu ngeen di def nii mu ne moom kay su may ànd ak moom daf may bëgg a wax waxtu bari gaawal xam naa ne tey moom doo fi def dara ma ne ko loolu loo ko waxee rek dee daa rey na la parce que sëy psycholo c'est psychologique. Mm-hmm. c'est désir la désir la. Mm-hmm. su la nit ki demoon sa moral ba bu ko yàqee rek. Mm-hmm. nañ ko sa appétit. ndax érection bi lu koy indi. mooy ay ay ay imagination. mooy mooy yokk érection bi. mooy moo lay ci surtout koo xam ne partenaire boo xam ne da ngeen sëy ngeen dem ba miinante. kooku jabar sax des fois mu indil jëkkëram. manque de manque de force. manque appétit sexuel. ay éjaculation précoce fekk sa communication ak sa jabar waxtu ngeen def rapport. moo dul baax tële fekk fekk am am dépense di ko ci fekk dépense di ko ci fekk di fekk dara dala ko mhm. loolu jabar dina ko jabar dina ko mhm. dina ko teg jëkkëram fa mhm. na yow su fekkee ne da nekk koo xam ne da ngay ànd ak sa jëkkër ngeen di sëy yéen ñaar su ngeen di sëy da nga koy war a ah nijaay ah dem bu dem defu dara démb li saawaay li nga def yóbbu nga ma cëccal seel fekk def fa dara fekk def fa dara léegi su ko defee ku góor ku jigéen ji bu jigéen ki mën na commencé ngeen di ànd yéen ñaar ngeen di ngay jabatu di hmm. waxtu fekk yaa ngi koy yokku hmm. yaa ngi koy dolli fekk xamoon nga ne kii kat affaire baa ngi commencé doo wàññi doole daa ngi commencé wàññi parce que hmm. soo sëyee ki dix ans quinze ans c'est normal da ngay ngeen doon sëyee avant ak léegi ni ngeen di séyee nekkatul benn mhm. su ko defee nga wan ko ne ko yaa ngi fi ba léegi mhm. loolu dina tax jëkkër am courage dina jëkkër gën a nopp jabaram mhm. na ah bu xale bi de démb xaw naa ko jëpp man man ni ma ñàkkee kattan nii ak ni ma ko def fekk defee ko dara même mooy ci ay manière ci ay façon am ci lay yokku la yokku la appétit su ko defee loolu yëpp ci sëy la waaye dencante boo gisee ñu naan dencante da ngay gis sa jëkkër nga xam ne gis bett nga ko mu def lu jaaduwul nga dencal ko mu bett la nga def lu jaaduwul mu dencal la loolu la ñuy wax way dencante dencante mooy ma dencal la nga dencal ma mhm. du question jël la denc la ci kër gi du loolu de ndax bu dee way dencante ku góor gi kon dencuñ ko ku góor gi mooy denc ko jëg jigéen gi ndax moo denc jabaram moo denc jabaram donc kon baat bi xon foofu nga def ko jóg ah. li ko tax a jóg mooy ma xamal la nga xamal ma ñu denc ko ñun ñaata kenn ko wax keneen sutura sutura ci biir néegu sëy la laalante mhm. loolu mooy way dencante dëgg la donc jabar dafa war a dencal jëkkëram dëgg la waaw léegi ñu ñëw sëriñ bi balaa balaa balaa balaa muy gën a naaj ñu ñëw léegi ci beneen côté bi nag muy wàllu góor ki mm-hmm. liñ fa wax lépp ci wàllum jigéen ki la mm-hmm. jigéen nu muy comporté wu ak borom këram mm-hmm. lan moo ko war nan day yokkee boroom këram doole nan la koy suturaale loolu lépp wax nga fi te yaakaar naa ne jigéen ñiy seetaan présentement nekk en ligne wala ñuy dugg après di ko seetaan dinañ ko jëfee léegi nag ñu ñëw ci wàllum ko góor ki jëkkër ci jabaram nan lay mel nan lay comporté ak jabaram lan moo ko ci war jëkkër ci jabar mooy kanam gu leer mhm. nuyoo mhm. apprécier mhm. sa jabar bu sañsee nga apprécier ah soxna sa sañse fa rafet na tawakkal la wala sa jabar romb la nga nag ah soxna si li nga xëy neex na de xam nga jabar di nga jigéen seen jaamu yàlla yi ñuy jaamu yàlla ci àddina bi bu àllaaxira xam nga loolu leen ko yàlla fayee taar ngir bëgg giñ bëgg taar al bu buñ demee leen jaamu yàlla yëpp taar leen ko yàlla defal ngir bëgg géñ bëgg taar nga xam ne jigéen dafa am benn désir boo xam ne moo mm-hmm. nekk ci jigéen mm-hmm. mooy nga koy apprécier mm-hmm. wax bu neex gi nga communication jigéen moo ko gënal xaalis so góor ñu bëri xamuñu loolu coppi nga sa jabar soo amul dara ngay communiquer moom def ko sa partenaire di communiquer moom di ko wax sa bopp sa secret yenn yi sa nga di ko denc mais ne lay xamal dara gis nga jigéen jooju yaay yaa yaa ko moom ngay communiquer ak sa jabar mhm. ah soxna si tey de moom toto parfum bi macha allah mhm. ah soxna si temps yi sa bi doy na waar de mhm. ni ngay daagoo ci kër gi man de boo rombee rek maa nga juróom-ñaari asamaan man de xaw ma yow temps yi lu xew waaye yow loo ma déggal yow lu xew ci kër gi ah temps yi ni ngay bajontoo doy na waar de màggat mu mel ni yow ngay bajonto mel ni xalab juróom-ñaari at man de xale yi namu ci dara ndax sa daagu bi xale kooku yaa ngi koy yee yaay ndax jigéen du màgget Mhm. te xoolal jigéen ñi Sénégal da ngay gis sénégalais day dem ba am cinquante cinq ans. di soog a saf jeeg. Mhm. commencé nekk jigéen. Mhm. nga commencé gis taar dëgg ci moom. ndax taaru jigéen. sénégalaise la ko yàlla may yàlla may na ko loolu. mais am na ñu bëri ñoo xam ne seen jëkkër seen jabar yi découragé nañ ci seen i jëkkër. ndax seen jëkkër yi ndax seen jëkkër yi. du ñu apprécier sañse. du ñu apprecier cuuraay. du ñu apprécier lal bu lal sax da nga ko war a booy dugg sa néeg xool xool lu fa bees. luñ fa teg te teguñ ko xawoon luñ nga apprécier ko hmm. day tax jabar day gis ne yaa ngi koy bàyyi xel e nekkam ci kër gi yaa ngi koy bàyyi xel hmm. existence am yaa ngi koy bàyyi xel su ko xam ne ci kër gi yaa ngi koy seet ci kër gi mu nga ne ah jongoma ah ah ko communication am ngeen waxtaan yéen ñaar mhm. bu ko defee soo wàccee ci kër gi boo nuyoowee mhm. nga dem biir néeg ba yegg ba ci biir toog mhm. wala nga yegg ba ci biir ngeen waxtaan ak sa échanger ay ay mots ah tey dëkk bi dafa xawale dëkk bi dafa laa dafa dafa wan ko ne ko maa ngi lay indil ay xabaar ah, su ko lu mu xam wax ma fekk na <laughs> mille nga xam benn ko wax benn nga ko wax benn nga ko wax mais boo ko bu la laajee nga ne ko luy hmm? ah, jàpp dafay jàpp benn dafay nekk mel ni comme étranger ci kër gi te fekk moom mooy responsable kër gi moom jigéen mooy ku jigéen ki mooy responsable kër gi parce que moo yor njaboot bi jigéen moo yor kër moo yor kër mhm. kon kooku boo ñëwee da ko war a indil xabaar wan ko la nga wax ko la nga yendoo mhm. boo ko waxee boo boo yendoo fukk nga wax ko mhm. ñaar di ci des nga denc ko parce que jigéen ay pexeem dañoo rëy inna kay da kayda kunna azimun seen pexe dafa rëy soo xamee fukk wax ko ñaar su ko defee loolu dina sentir na mankat boole nañ ma ci kër gi sooy def laaj ko xalaat mhm. ah man ka dama bëgg a def nangam gan gi kat dama ko bëgg dafa bëgg ñibbi mhm. ñaata laa koy may mhm. yaa ngi koy boole ci sa yaa ngay partagé ak moom ah jox ko nangam wala nanga laa ko bëgg ah na nag ah kon bàyyam jox ko nangam loolu du dara hmm? mais moom mu ngi sentir ne yaa ngi partagé ak moom sooy sooy tukki tàgg ko sooy ñëw tàgg ko sooy jóg yëgal ko su ko defee moo xam ne moom jëkkëram mu ngi ci biir këram su ko defee su ngeen di sëy ngay apprécier ay ay manière am ay gestam ay gestam cuuraayam toggam mhm. yakkam mhm. yépp ngay apprécier mhm. des fois mu laaj la waa yow ban plat nga gën a bëgg nga waxoon na ko man say plat awma ci man amoon naa nan ko togg rek yow xoolal amoon xam nga man ban palaa mooy sama plat mooy loo togg mooy sama plat bu ko defee day xam ne kii kat lu mu togg neex na ma bu ko defee nga apprécier <laughs> uh-huh. waa bu ko defee bu tàgg bu toggee mu rëccile mu saf xorom bu ëpp nga ne ko eh, Adja xam naa ne da ngaa bëgg xorom yow ni nga bëggee xorom te ceeb bi moom da nga koo togg macha allah ah xanaa da nga koy def jumbo nangam wala da nga koy nangam maa ngi maa ngi wax sax ma kii. garaawul yaa ngi dégg defuñu publicité kenn dañ koy tere sax. yaa ngi dégg uh-huh. donc yooyu su ko defee nga apprécier toggam parce que togg dafa métti. Mm-hmm. nekk ci waañ bi. defar lu mu xalaat def ko ba toog gi di sotti su ñëwee même bu fekkee ne am na ci loola naqari sax mm-hmm. da nga koy am manière boo koy defee ndànk ba moom mu xam ne nangam kat ëpp na ci mm-hmm. su dëgëree bopp ba nga xam ne nangu wu koo dégg mm-hmm. su ko defee nag nga ne ko ah man de xam naa ne diw sàngam de seen togg gi moom seen kër ma demee ma lekk fa xam nga jigéen dafa bañ loolu ba ma lekk ma naan seen togg gi dafa dara dafa neex lewet togg bu ko defee day bàyyi loolu dem daa parce que bugguñu diw sàngam lekk ñu apprécier lekk keneen ko dut ko doo ko xas lekk mais da ngay apprécier lekk keneen da nga gis mu mu bàyyi ndax jigéen dafa fiir du mm-hmm. ko def ko dee xam ne moom kat am na lu muy def ci toog ji loo xam ne yow neexu la bu mm-hmm. ko defee nga ruus ko mm-hmm. beneen bi si topp mooy nga respecté ay mbokkam ay mbokkam ay mbokkam moom nga dalal leen waaw loolu seetlu doon ko si jigéen jigéen dafa ñeme ay goro njëkkee voilà lu ma yóbbul sama sama sama sama xaw nu ngexee seen terme yooyu voilà njëkk goro yooyu noonu voilà même bu fekkee ne yow amuloo euh, kii philosophie boobu mais na leen na na nga ko forcer su ndax loolu la gëm voilà nga moderniser ko ba nga xam ne moom doo ko doo ko doo ko frustré mhm. ci loolu bu ko defee jigéen dañ ko war a yaatal mhm. da nga ko war a wan ne ko kër gi yow laa ko dénk mhm. yow dépense bi soo ko yëkkatee da nga koo teg ci loxoom yaa ngi dégg bul nangu jël dépense bañ ko yóbbante jànq bi wala bañ ko yóbbante xale yi bul nangu jël sa dépense di ko jox jànq wala di ko jox gardien wala di ko jox ci boutique ba bu ko def jigéen même bu fekkee daf ko yàq soo ko joxee xaalis bi mu dem def ki ko leneen yow jox ko ko rek parce que moom moom. waaw am na ñu koy def de am na ñoo xam ne day bàyyi ba fin du mois. ñu jël somme bëri dem jox ci boutique ba. parce que seen jabar mooy yàq. Mm-hmm. seen jabar mooy yàqkat. waaw yow yaay dindi loolu ci moom. waaw yaa koy dindi ci moom ndànk-ndànk. Mm-hmm. léegi su ko defee loolu daf dina tax wala sax yow nga dem jëndi ko indi ko teg ko ci kër gi mhm. bu ko defee li nga ko jox par jour boo ko globalisé mhm. jox ko mhm. euh, bi jeex na laa da nga koy def da koy da nga koy def di ko jox par jour nga def def ko journalièrement di ko jox su ko defee di ne am ak di ngeen am ak connexion di ngeen mën a échanger wante ne ko xaalis dépense baa ngi nii ah ceeb bi de jeex na wala diw bi jeex na doolil ma nangam su ko defee loolu échange la bu waxee loolu day waral communication am entre yéen ñaar. Mhm. su ko defee tamit ngay apprécier. Mhm. di waxtaan ak moom. Mhm. di di ko di ngeen di partager. loolu dina tax jigéen. sentir jëkkëram ci wetam. su ko defee bu ngeen di sëy yéen ñaar. boo xamee ne lii da koy soxla ci sëy. nga di ko def ci sëy bi. nga di ko def ci sëy bi parce que day tax mu gën a sentir jëkkëram. am na jigéen ñu bëri ñoo xam ne bu seen jëkkër liggéeyee ñu roy weleeku ndànk dem mooy seen jëkkër. sa parce que dafa am lu leen manqué ci seen jëkkër loolu noonu seen jëkkër war a ko dañ ko war def te loolu jigéen bu koy def mu ngi def bàkkaar bi gën a bon ci àddina sa jëkkër moo la ko def loo moo la ko def mooy responsable bi moom mooy responsable mm-hmm. moo tax jigéen mm-hmm. dafa war a fexe di xool jëkkëram lan moo ko manqué mm-hmm. la euh, jabar dafa war a xool jabar euh, euh, jëkkër dafa war a xool lan jabaram lan moo ko manqué mu mu di ko def mu koy defal moo mu ko koy defal moo tax ba tey ñu dugg foofu ci beneen ci beneen point mooy mooy defaral sa defaral sa jabar léegi di ko defal da ngay gis koo xam ne day takk jabaram un an douze mois du jël benn cadeau jox ko jabaram du jënd yëre jox ko mhm. du jël xaalis may ko mhm. comme jabar ji daal benn meuble la ci kër gi mhm. loolu tamit baaxul benn tisi du tisi du xaalis du dara sa jabar boo ko munta may cadeau chaque jour soo ko munta kay ma may cadeau bu rëy mais da ngay jël sa dépense chaque jour nga ne ko 2000 francs yaa ko moom nga ne ko surplus ci dépense moom mu sentir na am na mille francs par jour ci yow le mois c'est 60 000 ah oui la soo ko mënta jox mm-hmm. soixante mille francs par mois. Mm-hmm. mais defal surplus nga ne ko deux mille francs yi bokk ci dépense bi deux mille francs yi yaa ko moom. Mm-hmm. yaa ko bu ko defee jigéen mën na kor korkoral mën na natt mën na denc mën na dajale. yow soo ko mënta bu dee doole ji may la nga di ko jox cinquante mille. wala cent mille francs par mois di ko ko may yow xoolal. rek ko jox chaque mois chaque jour. Mhm. soo ko joxee dépense dépense bi 5000 francs wala nga jox dépense bi 10 000 francs mhm. nga teg ci 2000 francs ne ko 2000 francs yi moom c'est bokkut ci dépense bi yaa ko moom. Mhm. chaque jour mu gis ne am na ci yow 2000 francs. gis nga 2000 francs yi moo koy gënal dootul amat soxla sa 10 000 yi francs yi lay gis. waaye ñoom dañoo ñoom dañoo mën dajale. dañoo mën a dajale léegi su ko defee yow chaque mois. sa jabar. Mhm. du la xas dina ah wax dëgg yàlla de moom chaque jour mhm. mhm. dina ma may minimum 5000 francs wala dina ma may 2000 francs. am na ñoo xam ne xëy may seen jabar 5000 francs par jour. yàqalu leen dara. xoolal 5000 francs par jour boo ko sa jabar le mois c'est 150 000. 150 000 jabar bu am ci jëkkëram par mois lu muy waxati. dara te cinq mille par par jour du dara ci yow mm, mm. donc am na ñoo xam ne mënuñu ëkkati cinquante mille wala cent mille may ko seen jàpp ba ne pourtant benn jigéen bu ñëw ko may pas cinquante mille mm-hmm. loolu dafay am ci entre couple yi c'est ci ni ñu dundee la moo koy indi du question da jabar jëkkër ji mooy bañ a defar jabar ji mm. mais seen comportement moo koy indi léegi nag soo bëggee xeex ak loolu da koy def journalièrement da nga koy def par jour chaque jour nga ëkkati Mm. chaque jour dix mille francs mois bi trois cent mille francs la. Hmm? léegi yow boo yëgatee trois cent mille pour bëgg ko may si mois bi day métti. mënoo mën nga ko mën nga koo mën mën financièrement mais seen relation miineel gi mooy dem ba loolu dootu mën a te nekkati. Hmm. des nga gis ku jënd kër may ko jabaram. Hmm. des fois nga gis ku jënd oto may ko jabaram. waaye ah, oto c'est des millions. mais am na ñoo xam ne mënuñu ko. am na ñoo xam ne amuñu capacité bi am na ñoo xam ne amuñu financièrement ñu ko. mais nga jël cinq cent francs par jour jox ko sa jabar le mois c'est combien <coughs> bu ko xeeb nga jël cinq mille francs meq sa jabar le mois c'est combien c'est cent trois cent mille kooku dafa war ci diggante ay couple kon nga defee ku jigéen gi dana sentir na man kat am naa benn bénéfice boo xam ne ci sëy bi sama jabar sama jëkkër mu ngi ma koy defal à part bu ko defee boo rommee benn tissu bu rafet nga jënd ko indi ko ah man ne daa waaye dama gis baal tissu bi daal xalaatuma ci kenn ko du yow xoolal semaine boobu yëpp da ngay am jàmm sa jabar parce que am na ñoo xam ne dañu mel ni ay gaynde seen kër. Mhm. suñ ñëwee ñëpp daw. Mhm. yow doom yi sax duñu yàkkamti duñu yàkkamti nga wàcc. Mhm. wala duñu yàkkamti sax dañuy yàkkamti sax nga génn kër gi. loolu baaxul. jabar gis nga yoon ci Yàlla moom sallallahu ay soxnaam da daan dàqe ñoom. da daan ak ñoom. parce pour lan jëkkër ji dafa war a nekk parce que jëkkër ji mooy aljanay kër gi. doom yi mooy seen bànneex jabar yi mooy seen bànneex. aljana jooju nag soo leen ko xañee sa sa kër lu mu rafet rafet dafay mel ni mbalit gis nga am na góor ñoo xam ne tey da ngay gis ñu ñu ñu ñu nekk ay di di di seen jabar yi. Mm-hmm. duñ leen faal duñ faal seen jabar yi duñ respecté seen jabar yi. Mm-hmm. ba nga gis njéegi ñu ñu seen jabar ñu leen di fekk ñuy def yu doyee di yoo xam ne. Mm-hmm. ah ku leen a diw jabaru diw mooy def nangam doo ko mën a gëm. fekk lu ko indi sa jabar dafa amatul reetaan ci yow. fa mhm. jabar amatul communication bu rafet. psychologiquement da koy jàpp psychologiquement loolu daf koy manqué. Mhm. il suffit que benn doom benn benn benn bandi rek. Mhm. dugg ca kër ga. wax ak sa jabar wax bu neex rek. loolu mën na ko excité. fekk na loolu am na mun na am sa jabar loolu dafa nekkoon dafa nekk visam. moo tax jabar loolu sax moo ko indi ci kër gi. loolu mooy ñoom dañuy faral di wax. jabar dañuy lekk ak naan am na sama kër bay. waaw soxla communication. dañuy soxla góor dañuy soxla góor ci kër gi dañuy soxla góor ci kër gi dañuy soxla ku présent temps ci mhm. nga xam ne da leen tal mhm. bu ko nag léegoo léeg nga génnee leen mhm. ànd ak ñoom génnee leen léegoo léeg nga toog toog toog ak ñoom hmm? même loolu nekk nekk kilifa da ngay toog léegoo léeg nga dajal leen nga toog ak ñoom bu ko defee ñoom ñu xam ne ñoom ka jour sàngam wala heure sàngam ñoom ñoo ko moom ci seen papa loolu lañ ko dafa jëkkër na ko war am ci ay jabaram guddi jotee nga bañ a tappatoo sa liggéey rek topp liggéey bi topp liggéey bi topp liggéey bi topp kon ku mel ni man man man mi nga xam ne man <laughs> man man moom damaa tëppërli mm-hmm. man mën naa toog guddi ba bët seeti ko wirda <laughs> mm-hmm. su <laughs> guddi ba léegi léegi ñu woo ma yemale ma xamal ma sama bopp nga dee ma raay ndoom raay ndoom daal di normal la man sama jabar ñoom ñoo miinante mm-hmm. léegoo-léeg sama soxna si dafay ñëw yaa ngi ci sa aawooy wala yaa ngi ci sa kurus yi rek yooyu lañ may tuddee quoi ah, su ma yoree kurus yi dañ daan ma xam nga des fois dañ may ah, ah kii xam nga damaa miinante ñoom ma xam ne. lu leen ah. lañ may yàq. Uh-huh. te loolu sax nekk ci dara. Mm. ba jël seen àq sax ñu ma ñu ñu toléré leen la ko. Mm-hmm. lu tax ñu la koy toléré. Mm-hmm. mooy yaa ngi leen koy jox ci beneen fànn. Mm-hmm. xam nga li ma la donc jabar du daa nekk gendarme ci kanamam. da nga war a nekk ko modeste parce que jigéen. yow yaay wéttalam yaay genn wàllam. yaay aljanaam. yaay bànneexam. yaay léppam yaay ndeyam. yaay baayam. yaay yaay nijaayam yow la am mm-hmm. donc yow nag da ko war a féetee ci côté boobu ci fànn yëpp mm-hmm. lekk gi da ko war a dox lekk bu neex mm-hmm. léegoo léeg nga jënd lu neex indi may ko léegoo léeg nga jënd lekk gu neex indi ci kër gi ne leen kay ñu xam ne kay seen papa am mu ngi leen di xalaat mais am na ñoo xam ne seen bànneex daal si seen euh, euh, euh, jabar mooy bu gan ñëwee su gan ñëwee ñu waxtaan ree su kan nga jëmee pare nañ ci. ñu ñàng ñu ñàng laaj ci jamono ku nekk nekk ci sa a ubbi mhm. Mhm. jëkkër dafa war toppatoo jabaram. Mhm. jabar dafa war a toppatoo jëkkëram. waaw sooy sooy sooy wàcc. lu mu bon bon war nga jënd sax même bu dee benn tàngal sax. nga jënd ko indaale ko jox ko si wala sax soo wàccee. nañ sentir nañ dañ nañ la namm xale yi or buñ déggee sa baat fi ngay xamee ne borom kër gi waa kër gi ak ñoom ñoom ñu ci jàmm. ca xale yi nga koy xamee. soo déggee baat borom kër gi salaamaaleykum dégg ko benn xale bu yuuxu paa paa ñëw na mm. xamal la waaja gaynde la ci kër ga mm. loolu dañ ko bàyyee xel xale tépp ku nekk borom kër ci kër boo dukkee ne salaamaaleykum fëgg wala sa oto gaare xale yi war nañoo daw bruit moteur bi sax dañ koy bruit moteur xam mooy li nga doon wax keroog sama sonnerie samay doom nu may sonnee samay doom man sama soxna su ëmbee sama doom mm. su may wàcc sama soxna ci sama doom bi mu ëmb ci lay xamee ci lay xamee ne wàcc naa sama soxna wax na ma ko plusieurs fois parce que man su ma ñëwee même ki ñu ëmb sax damay communiquer laa sax kii même ki kiñ ëmb ci biir ëmb bi dama ko man samay soxna samay doom man lañ gën a xaritool ko seen yaay parce que si seen bi sax man lañ gën a nekk xarit waxuma laa balaa ñuy donc loolu conseil mooy jox nit ñi la mm-hmm. sa buñ ko ëmbee war nga ñëw raay ko fóon ko mm-hmm. wax ak moom nuyu ko namu naa la mm-hmm. day xëy xam moo tax may wax ne ñu baal ma loolu benn benn benn kii la may wax ne parenthèse la benn parenthèse la suñ doom yi bu ñu bëggee ñu muus nañ leen jàngalee ci wolof ndax bi ñuy yéen seen yaay yi ëmb wolof lañ dégg ñu koy wax bu dee pulaar pulaar lañ ko raw jàngale hmm. soo demee France français yi duñ jàngalee seen ay doom anglais hmm. ci français lañ leen di jàngalee technologie ci lépp ca ëmb ba lañ ca ëmb ba hmm. anglais yi boo demee anglais la ñu ñu ñu raw ñu ñun ñëwee jël français di ñu ko jàngal suñu yaay di wax wolof suñu papa yi di loolu am na solo am na solo loolu mooy tax duñu mën a def duñu mën a def ay yenn invention yi loolu loolu intelligence ci xale boo gisee muy baax parce que lu koy waral moo tax même sa doom bu juddoo war nga nekk ak moom ba mu dëgër man dama koy def man sama doom balaa muy jàngi dara dara muy alquran muy dara balaa muy jàngi dara man dafay communiquer ak man ba xam soo ko dem jàngi parce que balaa muy dem ci enfanté ci àddina bi war na fekk yow nga tabax ko ba pare à l'âge de sept ans wala cinq ans war nga pare sa doom war na war na war na pare mu jàng mu ñàkk jàng war na réussir dans la vie. Mhm. donc loolu mooy éducation éducation dem ci école bi doo fa jëlee benn éducation. Mhm. au da nga fay perdre sa temps da nga fay mhm. loolu la mais léegi bu njëkk sax jàng amoon na mais léegi jàng donc sa doom balaa muy dem di jàngi war na pare. war na yeewu. war na xam man sama doom bu sama doom balaa muy am set balaa muy am un an. un an dama naan aju chaque vendredi. damay jël dama koy jël nangu ko ci yaay ji. Mhm. ànd ak moom dem. dem àjjuma ah dem àjjuma ku ma xam xam na loolu. Mhm, dëgg la ah, dem àjjuma xoolal ba ngoon jot. Mhm. xale bi du jooy. du jooy nàmp. du laaj iween. yaay ji dafay jow ma yow da dof. ma ne ko dofuma kii dama ko xam dama ko dama ko bëgg a teel a xam responsabilité bi koy xaar. ci ci àddina. keroog mu àndee ak moom ak yaay yaay ji. ñu ànd dem mu ne ma bu ñu mu ngi am un an macha allah jotuma ko comme deux deux ans trois ans ci xaaral rek su ma màggee dinaa la jëndal oto bu dàq bii nii laa lay jëndal. macha allah donc loolu euh, macha allah jotuma ko. Mhm. loolu xam nga tax. Mhm. ma koy ma ma ma ma kontaan ci. Mhm. mooy teel na comprendre nga xam ne. dafa war a nekk responsable. te daf maa war a defal. te te te duggagul école. demagul dem ay gars yi di wax noonu ay yóbbu xale jardin. yooyu tubaab yi ñoo ñu koy def pour nangu suñu doom yi jàngal leen seen éducation bi ñu bëgg a. naxe xale à bas âge. à yóbbu leen xale warul dem jàngi jardin. dafa war a toog ci wetu yaayam. yaayam nampal ko jikkoom yi nampal ko seen aada nampal ko seen culture papaam nampal ko seen culture mu màggale ko ba keroog muy dem école kooku day dëgër day xam day xam lu muy jombu day xam lu muy kersa day xam lu muy mën day xam lu muy job bañ mm-hmm. mais xale boo xam ne tax waaye amagul un an sax nga këtt nga ti séparé wu ak moom ween bi muy namp men moom muy namp du meew mi mais jikko yi ngeen nekkee yéen ñaar ak seen culture lool da wax loolu loolu lay wax naan man tamit man men nangam la namp mm-hmm. xale loolu moom mooy xale bi. Mhm. donc loolu xam naa dana ci mos a def benn. débat moom moom moom nga loolu mu doon def noonu. waaw ba tey waru la ci ci diggante ci. dëkk waaw doom dañ koy tal. ngay mhm. communiquer soo wàccee papa nangam. moo tax sama kër boo ñëwee da ngay gis xale yi am ay un an yi mhm. sama doom am un an papa lii lan la ma daal la papa lii lan la mën naa xëy cinq de temps. nekk sama doom yi papa lii lan la télévision télévision yi mën nañu ma ko laaj cinq fois. papa lii lan la télévision koo xam ne dafa war a xam dafa am mémoire boo xam ne seen mémoire yi foofu lay capté mhm. foofu da nga war a tal xale bi mhm. lu mu la laaj nga wax ko su la mhm. laaju sax nga jàngal ko kii sa nijaay la kii sa papa la kii sa lii la kii sa lii la kii sa loolu bu defee loolu da koy màggaale ñu bañ a sàllar ñu bañ a sàllalu nijaay yu xam nijaay mooy lan xam papa mooy lan xam ba loolu mooy waral ëllëg ñu xam seen ay limite xam seen ay frontière xam seen ay am ay kersa am ay jomb am ay gàcce yooyu ñu mën ko xam dëgg la bu ko defee ñu mën a ñu mën a ñu mën a tegu si seen yoon mais léegi boo xoolee léegi dëkk bi léegi crise de valeur bi la ko indi mooy mm-hmm. ñàkk éducation bi amatul mm-hmm. léegi xale yi yëpp école lañ di sànni mm-hmm. ka leen di jàngal sax mën naa bañ a nekk mën naa bañ a am niveau yor xale yi ci niveau bi war a soxla ci ñoom ah léegi njàng mi léegi ku jóg rek nekk jàngalekat est-ce que préparé nañ leen ki ngay jox sa doom xam nga ban niveau la am pour mu war a yor sa doom est-ce ki nga jikko kooku noonu ak xam-xamu kooku noonu est-ce sa doom sax tanewu ko nga war a fopp ko rek yóbbu a sànni ko moo tax man sama doom du demal ci kaw acca wala ma la ko demal demal ci fii xale du toog ci kii parce damay dégg yow communication bi ngay wax moom bugguma sax mu dégg ne communication bu mel am na parce que loolu dama koy dama koy dama koy dawal sama doom parce que am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee sa doom eh ana sama série bi a ko war a war a xale hmm, ana ne yow xamoo ko xamul la kër gi nekkaa su nekkaanoo ci kër gi bokkoo moom dara ah eh, xale yow nopp nga ma xale bu juddoogul xamagul dara nga koy wax nopp nga ma bi lépp moo nopp nga ma cela veut dire que yow yaa ngi koy jàngal amour xale boo xam ne xamagul dara koy wax eh eh soo kii yow foo toll ci alquran foo toll ci école foo est ce que yaa ngi lii loolu la ñu ko rafetale. Mhm. est ce que yow yow yow boo màggee ban kër kër nga may jëndal ban nga may jëndal ko. Mhm. ma xam ne xaj na ko jàngal jom. Mhm. mais eh, eh, eh, yow nopp nga ma. man damaa man damaa ñaaw de yow da ngaa ñaaw de loolu waruñu koo wax xale. xale dañ ko war a teel a formé. dañ ko war a teel a préparé. donc jëkkër nag ñu delluwaat euh, euh, ñu ngi euh, revenons à nos moutons. waaw ñu revenons à nos moutons. <coughs> ngeen ngeen baal ma. waaye itam. dafa am laaj bu ñuy bu ñuy bu ma bëgg ñu ñëw ci. waaw ah. mooy waru gar ci diine. Mm-hmm. ñett yi damay dégg waarakat di ko wax. Mm-hmm. mooy boroom kër. Mm-hmm. ñett yi dafa la war. mooy sa soxna. yaa ko war a dëkkal. yaa war a dëkkoo. yaa ko war a koddu. ñett yi damaa bëgg nga waxtaan ci. mu leer naññ ci bopp ku góor ki. waaw ku góor ki dafa am ay devoir. yaa ngi dégg. balaa muy wax ay droit hmm. dafa am ay devoir waaw dafa lu ko war ci soxna si ba pare loo xam ne obligatoirement daf ko war sa soxna mooy bala ngaa waaw bala ngaa laaj dara soxna si muy balaa pour mu lekk hmm. yow la war yow yaa ko war a jox ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa responsabilité góor hmm. ci jigéen responsabilité ci ñaar ñi eh, ñiy dencante ku góor la war góor moo war a joxe def jigéen war sa jox jigéen bu daan am un par mois sa yoon néew yow waroo koo lu dul mu jël ci alalam yaa ko war a jox mu lekk yaa ko war a jox mu naan yaa ko war a jox mu dëkk yaa ngi dégg hmm. te guddi bu jotee da ko war a sey da ko war a jox xaqam ci lal bi muy muy dëkkoo gi muy dëkkoo gi hmm. jigéen da nga war a dëkkoo da nga war a da nga war a sëy moom hmm. ngeen am rapport nga koy fóon di ko raay di ko di ko jege tafu ci kaw muy tafu sa kaw am nga am affection ci moom loolu sariya daf la ko sant sariya dafa booy jàng dañ lay jàngal sa jigéen booy ama ak moom rapport balaa ngay yegg ci kawam da nga war a foo moom hmm. ba kanamam tooy ba mu njëkk a yëg boppam ba gis ne hmm. yaramam tàng na ba hmm. liquide bu ndox mu njëkk mi génn waaw nga soog a amagoo pour rek àq jigéen ngir bañ a blessé jigéen ndax jigéen boo ci xëy rek yëg ci kawam noonu rek ah rek commencé am ak moom rapport dañ ma baal ci kàddu gi da nga ngay gis dafay da koy da ngay gis mu yuuxu mu da koy blessé mhm. parce que boo ko boo boo boo ko boo ko njëkkee nag jaar ci xàq l'islam sariya li mu la jàngal mhm. ba pare mhm. da ngay gis ne bu ngeen ànd yéen ñaar début à la fin dafay nekk bànneex donc loolu jigéen di dundam lépp bànneex la jigéen waruñu ko blessé ci dara warul xiif da nga ko war a jox mu lekk warul rafle yaa ko war a jox woddu yaa ko war a woddu fi muy nekk yaa ko war a toppatoo même bu di jabar nekkee kër yaayam nga di ko fa fekk warul faa ne yaa ko war fu mu nekk yaa ko war a dox location jabar waroo jigéen waroo koo fayal location di ko ko wax maa lay fayal luyaas waroo ko ko wax yaa ko war a fayal da yaa daf laa war mhm. maa lay jox nga lekk maa lay jox nga naan waru koo wax jabar daf laa war mhm. maa lay jox yëre maa lay defal lii maa lay toppatoo jigéen waru góor waru koo wax jigéen daf ko war loolu da koy vexé soo ko ko waxee rek mu ngi mel ni nga par force la sax par la force yaa ko war a jox mu lekk mhm. yaa ko war a jox mu naan yaa ko war a dundal yaa ko war a dëkkoo donc loolu dafa war jigéen dafa war a jaay jëkkër ci jabaram bu feebaree yaa ko war a faj. waroo négocier ay ordonnance am. yaa ko war a yóbbu hospitalisé yaa ko war a hospitalisé. hospitalisation yaa ko war a fay. éducation ay doomam yaa ko war a jàng yaa war a fay. xale yi bu ñuy jàng yaa war a fay njàng mi. bu ñuy lekk bu ñuy naan lekk geeg naan gi yow la war a. parce que yow yaay gu yow yaay yow yaay jëkkër ji. kon góor li ko war ci jabaram. dafa bari. lépp ku jigéen ki ku góor ki moo ko war a gàddu. amul lenn lu koo xam ne dañuy war a war a góor gi ku jigéen ki lii moom. buñ fa eggee yow yaa ko war a defal sa bopp yaa ko war a defal sa bopp bu loo xam ne ci côté finance la mhm. financièrement mhm. lépp lu ci aju rek ku góor ki moo ko war a def mhm. waaw léegi nag ñi ñëw ci beneen côté beneen côté bi ñu ñëw muy ci biir néegu sëy wax nga wareefu ko góor gi wax nga waree wareefu ko jigéen gi waaye daf ci am yoo xam ne ci biti lay tukkee goo ñëw muy seytaane bi di njabar li di jinne ji di faru rab beeg di core rab li loolu bëgg naa nga ñëw ci nga waxtaan seeg nit ñi ñu xam saytaane dafa am ñaari saytaane mhm. nga saytaane bi yàlla bind mu xam ne yàlla dafa wax ne kaana minal jinni mhm. kooku li muy liggéey sax léegi bëreetul mhm. kooku mu jëlee retraite yàgg na saytaane <laughs> boobu noonu saytaane sa yàlla bind saytaane ba yàlla bind nga xam ne moom moo nekk saytaane bi nga xam ne moom mooy dund ba tey kooku moom yaakaar naa léegi est-ce que amul kër tabax koo tëkk ca ci kanam par exemple woon na dafa du dara de loolu bëreetul li muy liggéey de mais saytaane xam nga ban saytaane moom moo moo moo jëmmal gars yi. di <laughs> wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah nga xam ne boo la boo boo liqaamee moom moo mooy taxaw sa ginnaaw. <laughs> nga xam ne booy jiite booy julli booy jiitee ca kanam. moo lay aw moom mooy nekk sa ginnaaw. waaw saytaane boobu moom moo tas kër yi léegi. Mm-hmm. mooy saytaane nit. nit ki noppam nit ki noppam. Mm-hmm. nga man sama soxna bi ma ko taxee. Mm-hmm. bi mu ñëwee ci ma dama la ko maa ngi ci xarit. <laughs> ut loo mu la benn xarit parce que xarit boo fi ut rek mu tas kër gi. loolu jigéen ñu bëri seen sëy tas nañ lu ko tas mooy seen ay xarit. Mm. su doon man ay su doon man. Mm. du ma ko nangu de wala du tax ay jëw kan yow dégg li ah, te ma ngay dégg ma ngay dékku lu piir biir këram. waaw mm. ah lii de man de man man wax dëgg yàlla maa ngi doon muñal la waaye lii nag dafa ëpp nag. ah lii de dama wax sa yaay. man sama soxna bi ma ko takkee dama ne ko sama problème ak yow bu ko sama yaay bu ko boole. sa yaay bu ko boole. mayu ma la nga ut benn xarit. maay sa xarit lañ la sant ñëwal toog ci kër gi loo soxla wax ma ko man maa ko man maa koy def hmm. soxlawuma arrangement soxlawuma négociation hmm. bul ma muñal lenn hmm. loo war ci yow wax ma ko madame jaayante ko reyante yow indi indi la ko su ma ko amee indi la ko su ma ko amul ñun ñaar ñu bokk muñ ko waaye nag bu bu problème amee nañ ko réglé wante ñun ñaar su ma la meree mbaa nga meree ma nañ ko gérer ba mer ma jeex bul dem ci sama yaay benn yoon di ko wala nga dem ci sama mag wala kenn boo ko defee da nga ko rëccu donc loolu dafa nekk loo xam ne dafa war ci diggante ay jëkkër jabar mhm. yéen ñaar yéen a yor sëy bi yéen a ku góor ki mooy responsable bi mhm. ku jigéen ki dañ koo yor mhm. na topp ndigal donc saytaane yi nga xam ne nag ñoom ñooy tas sëy yi moo am na ci benn jigéen boo xam ne dafa demoon ci benn dëkk dem sëy benn anecdote benn mère na ko yaay sama yaay léegi dama laaj tànn def la ngay sama yaay lu ma am comme bànneex ma ñëw wax la nga xelal ma lu ma am comme naqar nga ñëw wax ma xelal mère bi nag léegi léeg jëkkër ji xuloo jabar ji xuloo jëkkër ji dem ñëw nekk ci maire bi hmm. maire bi di ko defal di ko defal ba benn bis jabar ji ñu du dóor koo dóor dóor dóor ba dagg ko hmm. léegi bi ñu ko dóoree ba dagg ko mu nàcc benn nàcc mu ñëw wax ko maire bi maire bi ne ko ah lii ëpp na nag yaa lii moom moom takkal sa bagage nga ñibbi na kii moom ëpp na kii daf lay rey maire bi mu xale bi ci biir dégg ndigal dem takkee bagage am dem takkee bagage am war a ñibbi nag yéen ëmbam hmm. ñëw di tàggu si maire bi bi mu ñëwee tàggu si maire bi fëgg maire bi uyu ko mu fëgg fekk maire bi uyu ko mu yaakaar ne maire bi dafa am lu ko dal mu ubbi ak a ji rideau bi rideau bi rideau bi fekk maire bi jëkkër jàng ko dóor ba yeew ko ci lal bi tànku lal bi <laughs> ba pare liggéeyi nag ba ko fa dem liggéey bu ngoon jotee lañ koy tekki ci ngoon maire maire bi maire bi mu ñëw ne ah waaw yaa lan mu ne ko bi ma fi séyee ba léegi ci lii laa nekk ko ma ko wax ko ma lii donc moom koy wax ne ko dagg-dagg bi ñu la dagg ni hmm. mu ëpp na te fekk moom chaque jour ñu dóor ko ba yeew ko ci tànku lal bi donc des fois nga gis jigéen conseiller moroomu jigéen lii su doon man du ma ko nangu fekk ma ngay wéyee loo xam ne boo ko xamoon boo ko xamoon da nga naan kii ndax gor laan du gor mhm. kon day leen bàyyi déglu ki leen di décourager ci seen sëy muy seytaane nit ñi mhm. des fois mu jugee ci sa rakk mhm. des fois mu jugee ci sa goro des fois mu jugee ci sa njëkki des mu jugee si sa rakk jëkkër wala mu jugee ci sa magu jëkkër yooyu yëpp da leen ko xàmmee képp koo xam ne bu waxee wax boo xam ne wax ji la muy tekki mooy sa diggante sa jëkkër jeex kooku seytaane la bàyyee ko xel ak nu mu la mënti jox dëgg jooju bu dee dëgg jooju boo ko amee rek. conclusion bu bu conclusion bi mooy yow yaa am dëgg pour séparation am sa diggante yaa fi jëkkër. rek baaxul ba xamal ne saytaane la fu mu mënti làmmiñ bu mu mënti jógee bàyyi ko xel. képp koo xam ne nag loo ko bañ-bañ loo ko mere mere bu la waxee dëgg dëgg ji lu muy tekki mooy fexe la jubóog sa jëkkër fexe la nangu fexe la ànd ak moom kooka mooy ku baax ka ak noo ko contrôler ak lu mu la ti mel ak loo ko bañ bañ bañ ak loo ko jëppi jëppi jëppi hmm. kooku mooy ki baax ci yow hmm. kenn nag loo ko faral faral loo ko déggal déggal loo ko bëgg-bëgg bu la wax wax joo xam ne daf lay may dëgg hmm. ba pare xiir la ci kenn mën a séparé wu kooko mooy sa saay daane bàyyi ko xel kon nañ bàyyi xel sëy yu bëri ñu ngi tas mhm. conseillers yi ñoo koy tas mhm. nit ki sooy dem di ut ku lay conseiller na nga ut ku la supérieur ci xel mhm. ut la ku la supérieur ci expérience ci sëy nga toog ak moom nga waxtaan ak moom te nag mu nekk ku maanu koo xam ne bu lay digal lu baax la lay digal te it li mu lay encouragé mooy nga gën a accroché wu si sa sëy ci sa njaboot gi parce que jigéen bu xasee am doom ci sëy rek na ko wóor wóor yàlla ne ah moom foofu mooy këram na ko téyel boppam donc am na jigéen ñoo xam ne dañuy wàññi ay mhm. ay ñoo xam ne nag ay rab moo leen di téye voilà côté sax na waaw des fois da ngay gis mhm. euh, di ko xiirtal ci mon mhm. am na ñoo xam ne sax seen rab moo leen di jàpp ci seen jëkkër bu ñu bëggee sëy ñoom sax du ñu mën a sëy ak moom da ngay gis koo xam ne bu bëggee sëy ak jëkkëram mën nañu waxtaan kaf reeme bu ñu demee ca lal ba óor bu dara desul lu dul sëy xuloo am fuñ jaar nañ xuloo ba ku nekk wan sa morom ginnaaw loolu rab moo koy def loolu lañ ci bàyyi xel ku ko gis ci sa jëkkër fexe la not sa bakkan su waxee rek nga naa ko waa d'accord am na ñoo xam ne mu mënuñu ànd mën nañu toog lu man ñetti weer benn yoo la ñu ànd ak seen jëkkër fekk seen rab yi moo leen def loolu saa yuñ demee ba war a sëy rek nga gis xuloo dana am il faut wax boo am benn wax bu ndaw bu bu sew boo xam ne booy tax nga gedd wane ginnaaw kee gedd wane ginnaaw loolu nañ ko bàyyi xel ñu xam loolu rab moo koy def am na ñoo xam ne buñ demee bay war a sëq ak seen ay soxna buñ demee ba dara desul lu dul ànd ak moom rek nga gis Euh, euh, érection problème érection daal taxaw affaire sàkkara si wàcc loolu la rab dina ko def stress dina ko def fatiguement général dina ko def. waaye rab daal am na ci. rab am na ci ñu bàyyi ci ñu bàyyi ko xel am na ñoo xam ne pour ñu dem ci seen kër jabar pour ñu dem nekk ak seen jabar xoolal da ngay gis su tëdd jotee ña ngi ña ngay fomp jëkkër ja ma ngay fomp wala jabar ja ma ngay fomp ma ngay raaya rangele ma ngay yëkkate ma ngay tëral ma ngay sangu ma ngay kii ba ko jëkkër ja ba ko góor ka nelaw mu a ñëw saa yoo ko gisee la moom moo lay def moo lay occupé ci leen moo lay occupé ci leen saa yoo war a def rek mu ne la fàttali la dara a rek nga dem def ko soo demee ba comprendre ko da ngay xam ne kii saay-saay la daf may yàqal su defee yow da ngay teg bagage dem tëddi hmm. am na ñu bëri tey dañu close seen jëkkër ak seen jabar moo leen ko def rab moo leen ko hmm. ñoo xam ne seen jëkkër yi ak seen jabar bu ñuy buñ bu ñu xëyee dem da ngay gis ñuy diggante téléphone ñu nekk ci jàmm nekk ci jàmm gën a sawar nga lañ gën a sawar sax ka gisante ci kër gi hmm. mu mel ne xay di sax kenn dootu mën te xool sa morom loolu rab moo koy def en général ay dëgg boo ko soree désiré ko ko soree désiré ko boo ko jegee suur ko jegee xam ne doo bëgg sax mu xeeñ la sax mu la doo bëgg mu jege la muy ko góor ko jigéen ko jigéen ki mm. loolu rab moo koy def moo tax rab dafa bon mm. ñu bëri nag am na ñoo xam ne dañ koy dañ koy négligé dañ koy négligé mm-hmm. mais bu ñu xamoon wala sax ñu koy jiiñ leneen wala ñu koy jiiñ leneen suñu xamoon rab li mu mën a def ci diggante ay sëy rek kon danañ jug ci moom danañ ko bàyyi xel. Hmm. moo tax sëy dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu complexe la. Hmm. parce que ñaari nit ñu boole la. Hmm. ñu bokkul culture wala ñaari nit ñu bokkul ñu bokkul ay mbir. ñu war leen a boole ñu bokk ci benn néeg. loolu il faut ñu koy topp jour au jour. jour au lendemain. chaque chaque sëy chaque jour la war a nekk chaque jour la war a toppatoo sëy bi. beesalaat ko dekkalaat ko. aaraat ko sàmmaat ko. yeesalaat ko parce que sëy noonu lañ koy sëyee rek bu am na ci ñoo xam ne. bañ gëjee lijjanti seen mbiri sëy dafa yàgg mhm. donc loolu moom mooy li nga xam ne moom moo nekk ci li diggante ay way dencante d'accord kon waxtaan bi neex na mhm. waaye nag yaakaar naa ne ragal naa ne dañ koy dañ dañ koy dagg fii ba beneen yoon mhm. ñu bàyyi la nga joxe say say say conseil rek say dernier conseil ci képp koo xam ne yaa ngi ci négocier négocier yi ma ci diggante mooy diggalaante mooy muñ yaatu dënn yaatu xol jigéen dafa war a yaatu di togg di joxe ah di muñ yi yi ñëw su su mbindaa nekkee ci kër gi nga yaatal ko su bon ah, nekkee ci kër ah. gi nga yaatal ko mhm. su gan ñëwee ci kër gi nga yaatal ko mhm. loolu mooy rôlu jigéen buy sëy mhm. sa goro sa wajju sa yaayi jëkkër mu ñëwee nga xam ne sa yaayi jëkkër soo ko xoolee sa taaw bu góor bu jigéen ñëwee nar ko nangu ci say loxo ni muy mel ci soo xoolee sa yaayi jëkkër rek di nga ko mën a muñal mooy li ma mën a waxtaan sama soxna si keroog mu ne ko boo xoolee sa doom bu góor bii su beneen jigéen ñëwoon war koo nangu ci yow ak li nga ciy sonne xoolal nga ni mu lay amerde guddi gi jot muy yuuxu si sa kaw gis nga ni mu nag li nga dem ko màggi ko ba moom mu takk jabar léegi benn jigéen ñëw fële rek mu takk ko soxna rek mu ñëw nangu ko su bu duggee ci këram sax mu boddi ko mhm. ma ne est-ce que dana neex mu ne ma du neex kay ma ne ko loolu la nag moo tax seen jëkkër yi mhm. da leen leen tërale seen yaay yi xam ne dañoo daj ci ñoom lu ya lu bari mhm. dañoo sonn ci ñoom ak lu mënti xew rek yaay jëkkër moom boo ko xoolee comme ça yaay rek di nga mën a da nga ko mën a supporter moo tax loolu dama koy conseillé waaye jigéen ñi euh, ñu ñu yaatu dënn góor ñi tamit nañ ñi waxtaan ak seen jabar yi nañ leen di defal ay cadeau ay surprise di leen bette ay xéewal doonte jabar des fois sax da ngay gëmm yim ngay def parce que jigéen matul mhm. jigéen ni ween wi sëggee noonu la xel mi sëggee mhm. pexe la am rek mais amul xel mhm. donc soo amee yenn euh, problème yi sax boo leen ko tegalee exposé leen ko mën nañ la ci génne solution bu gaaw mais xel amuñ ko mën lañ jox pexe moo xam ne boo ci jaaree doo fakkastalu doo am problème parce que loolu essayé naa ko ay yooni yooni yoon parce que man yàlla lu mu wax rek ba ndaw yàlla yàlla lu ndaw sax dafa nekk lu rëy ci ñun ndax yéen tam salaa ba ko jibril sonlee ba mu ñëwee da koo wax xadija da koo xadija da ko waxee ne ko boo ko lu may jàng hmm. yaa ngi dégg donc kon foofu loolu rek li nga ci wax loolu macha allah ah. tegtal mu leer la taf taf kay taf taf la hmm. donc jigéen dafa am hmm. jigéen dafa am yàlla daf ko may pexe te léegi imagine leen yàlla lu ndaw ci moom lu rëy la ci ñun waxuma laa lu lu mu réel yàlla bu waxee inna kayda kunna azimun yàlla lu mu màggal lu du ndaw dañoo rëy pexe dañoo rëy pexe donc kon nañu bàyyi xel ci ñoom mm. nañ leen di jox cër daf leen naw leen di def suñ ay doom daf leen suñ ay rakk mm. daf leen suñ ay yaay mm. daf leen suñ ay ay ay ca ay ay ay ay ay rakk yu jigéen ay sœur bu ko defee danañ mën a nekk ak ñoom moo tax jabar daal Euh, euh, com daf lay com daf lay euh, complémentarité la. Mhm. daf lay complété. Mhm. daf lay wéttali. Mhm. daf lay jox bànneex. yooyu yëpp dañ ko bàyyi xel. xam ne jigéen daal loolu la. ñu yërëm leen ñu yaatal leen. ñu ñu toppatoo leen. ñu leen di jëndal lu rafet di leen jox lu rafet. di leen jox lu neex. di leen yaatal di leen dëkkal. di leen neex di leen jox may di leen may di leen jox. Mhm. dafa am solo. jigéen dañ koy toppatoo. di ko may itam ci la bokk may ci dafa bokk daf ci bopp. di ko bokk bu neex. Mhm. donc loolu daal laay conseillé. Mhm. képp koo xam ne yaa ngi yor soxna. muy ñaar muy ñett muy benn muy ñeent lu mu ci mënti doon. Eh, na nga leen toppatoo na nga leen yaral na nga leen yaatal. góor timin jigéen timin na yaatal jëkkëram na ko toppatoo. toppatoo ay mbokkam nga ñaanal ñëpp ñaanal ñaan yàlla yàlla def jàmm ci sëy yi amiin yàlla def njaboot gu barke mm. yàlla yaatal dënn yi yàlla yokk njaboot gi def ci barke mm. yàlla naatal diggante yi mm. indi xéewal ak xaalis ak tawfeex ñi xuloo ak seen njëkke yàlla yàlla jubale leen ñu jubóog seen jëkkër yal na yàlla sàmm diggante ku ci bëgg doom itam te amoo ko yàlla yombal ko yàlla may mhm. xam naa beneen yoon dinañ waxtaan ci doom li koy xañ nit ak li koy maye mhm. pour ñu mën ci dimbalante ñoom ñu ngi di gërëm di leen sant euh, ba beneen yoon mhm. wasaare euh, kan la laaj waasi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi seen xarit seen soppe Cheikh Omar Diop ma doon waxtaan ak yéen fii ci cité Aline Sow village 652 ci wetu jumaa jërë ngeen jëf